asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax dal leen ak jàmm ci seen magazine Asaba tey jii di altine fukki fan ak ñett ci weeru avril atum 2015 ñaar fukki fan ak ñett ci jumaada saani may nuyu ak di ziar Serigne Mourtala Seye waaye sëñ Moussa maa ngi la nuyu di la ziare di nuyu tamit mboolem téléspectateur Al Mouridiyyah TV di la nuyu itam ak di la ziar sëñ euh, Mouhamed Lamine Diouf. ñu lay delloo nuyu bu baax sëñ Moussa di la ziar di ziar sëñ Moutala ak euh, mboolem téléspectateur Almouridiyyah. kon ñu tàmbali ko alxuraanul karim waxu borom bi subhanahu wa taala bi mu yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi alladi xalaqa as-samaawaati والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون sadaqallaahu al-aziim wa balaqa rasuulul kon bismillah ci aaya yi waaw jërëjëf sëñ Moussa kon tey aaya bi nga xam ne moom lañu indi woon bëggoon ci waxtaan tuuti rek mhm. ñu ngi ko jël ci suratul anham mooy bi nga xam ne moom lañ doon dégg léegi nga xam ne saar woowu yàlla sunu borom euh, bokk na ci yi nga xam ne moom la wàccee bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee Makkatul saar woo xam ne tamit téeméeri aaya ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo ci nekk lii nag doo nekk ci njëlbeenu saar wi xam ne yàlla sunu borom moom moo ñuy xamal ne euh, mu ngi jot li ak cant goo xam ne cant goo xam ne day dellu ci boppam ci moom yàlla bi nga xam ne moo bind asamaan moo bind suuf ndax loolu ci njëlbeen gi rek dañ koy gis alhamdulilahi lazi xalaqa samawaati wal ardi kon loolu moom yàlla sunu borom mooy borom kàttan mooy ki nga xam ne moo man mooy ki nga xam ne day sos fu dara amut mu def fa dara moom yàlla sunu borom moo def loolu waaye yëm ci loolu tamit waaye moom moo bind lëndëm moo bind ak leer mooy wajaxala zulmaat wa nuur kooku boroom kàttan dong moo man loolu mm-hmm. kenn ci ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf ak seen doole lu mu bari bari ak seen kàttan lu mu bari bari mm-hmm. kenn mënta sos lu mel noonu moom yàlla sunu borom moo ko sos waaye yëmu ci loolu tamit mi ngi wéyal ba tey di wane ne moom moo ñu bind te mi ngi ñu bind ci ban mooy li mu wax ne huwa lazi xalaqakum min tiin kenn ku nekk xam na ne sunu maam Adama yàlla sunu boroom moo ko sàkk te moo ñu xamal ne mi ko bindee ci ban waaye ci moom yàlla yonent yàlla adama moomu la sàkk tamit doomu aadama yi ñu soqi koo ci moom ba àddina yépp yëpp doon ay doomu aadama loolu moom yàlla sunu borom ci kàttanam ak ci xam-xamam bu yaatu moo mën loolu def loolu kenn ku moom mënut lu mel noonu kon loolu muy lu am solo loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax waaye tamit nag am na leneen loo xam ne dañu ko jàngal muy lu am solo mooy wóowalaahu fii sama waati ba fii laar bi yàlla sunu borom moom mu ngi si asamaan si mi ngi si suuf yàlla sunu borom dafa wuuteeg doomu aadama mi nga xam ne da koy mën a localiser ne ana diw ñu ne ma nga feye waaye yàlla sunu borom day koo xam ne dafa jiitu lépp amul fu mu tàmbale yàlla sunu borom tamit su demee ba lépp jeex moom yàlla moom mooy des kon moom mooy ki nga xam ne moo ñu amal kenn xamut kañ la sosu kenn ku ko xam amut moom yàlla sunu borom tamit mooy fi des bu lépp jeexee moom yàlla sunu borom tamit day koo xam ne amut espace boo xam ne dañuy wax ne espace bee soo demee fekk ko fa déedéet moom yàlla sunu borom mi ngi fépp kenn ku nekk mun a gën a jege say buumu xol kon fii day mel ne day barab boo xam ne mi ngi jàngal dëgg-dëgg tawhid ak na la war a jàppe sunu borom sunu borom boobu nag waaye am na ñoo xam ne seen weddi toll na foo xam ne waxtu wu nekk ñu ngi ko bëgg wutal ak ñaareel te loolu warta am kon yàlla suñu borom mooy bind asamaan mooy bind suuf mooy bind leer mooy bind lëndëm moom yàlla suñu borom mi ngi fépp aji jiitu la moom moo des buur boobu nag dañ ko war a jaamu dañ ko war a màggal yàlla suñu borom aji xam la nee na xam na li nga xam ne mu ngi suñu xol yi xam na li nga xam ne tamit waxagun ko te mu nekk ci biir xam na li nga xam ne kenn gisu ko xam na li nga xam ne mooy ni ñu feeñal ñëpp di ko gis kon yàlla sunu borom xam na lépp soxlawut ñu koy nettali dara ngir mu mën koo xam kon kooku mooy buur bu tedd bi mooy ki nga xam ne moom la war a jaamu moom la ñu war a màggal moom la war a jëfee ay bàyyi ay tereem mooy ki nga xam ne moo nu sàkk loolu nag day mel ne ci lii nga xam ne jël nañ ko ci jàng ko ci bu baax a baax kon. ñi nga xam ne ñu ngi ñett ñetteel yàlla suñu borom wala di ko wutal ndend mm-hmm. na nga xam ne kii borom kàttan la borom bëgg la lu mu bëgg mën na dara tëliwul dara xam na lépp mm-hmm. lii mooy li nga xam ne mbëggoon nañ ko indi ci mm-hmm. ay yi nga xam ne moom lañ tànn tey jii nag tawxiid euh, sëñ Mouhamadou Lamine Diouf euh, kon euh, sëñ Mourtalla Seye ñuy delloo ci ñun ñëpp ñu gëm ne am benn buur ba yeyoo ñu jàmm ko jaamu ko di njëriñ ñàkk jàmm ko di lore yàlla subhanahu wa ndax ba fi dara nekkul moo fi nekkoon e, su fi dara nekkee moo ko fi def ëllëg itam bu fi dara nekkatul moo mooy des nguuram kon e, bismillah kàddu gi. Mm-hmm. jërëjëf e, sëñ Moussa sëñ Mourtala indi na ay diggante yu am solo ci laay bi nga xam ne mooy tàmbali suuratul am te suñu boroom indi ci loo xam ne xamal nañu ñun doomu aadama suñu cosaan huwa allazi xalaqakum min tiin muy ban boo xam ne ci la sàkk suñu maam aadama ginnaaw gi mu meññu ñun ñëpp doomu aadama yi ak fu ñu mën a nekk kon ñun loolu mooy suñu départ loolu mooy suñu tàmbali waaye nag loolu dafa waxaat ne yéen nit ñi ak jinne yi dara taxul ma bind leen lu dul ngir ngeen jàmm kon jaamu gi rek moo tax suñu borom sàkkuñu kon doomu aadama ginnaaw bu xamee ne dañu ko sàkk ngir jaamu yàlla mooy la suñu Saliou Mbacké daan fàttali ne maa ngi leen di fàttali li ñu fi indi bàyyi ñu fi muy jaamu yàlla suñu borom ginnaaw loolu nag mu xamalaat ni tam ci aaya bi ne kenn ku nekk ci yéen am na diir bu mu war a nekk ci kaw suuf boo xam ne saadu ci dolliku saadu ci wàññiku li kulli ummatin ajalun fa iza jaahum ajaluhum laa yastaxiruuna saa'atan wa laa yastaxdimuuna saa ci dolliku saa du ci wàññiku loolu di kenn ku nekk ci ñun boo demee ci silkul jawaayir sëñ bi dalay wax ne benn doomu aadama bu nekk bu ganee àddina suñu borom dina yebal malaayikul mawtu mi nga xam ne moo war a jël ak ruwam mu seet suuf sa nga xam ne fa la war a faatoo jël ci suuf si comp ci dugal ko ci jumbu xam kaste ko ci nga xamante ne day dox ba yegg foofu suñu boroom daal di indi ñu jël ak ruwam kon moom utal nañ ko fu mu tàmbalee ak fu mu yem bokkal suñu borom mi nga xam ne ni ko suñu mutlaa waxee sànq wa huwa xadimun maaluhu bidaaya wuzu baqaayin maaluhu nihaaya aji jiitu la ju amul fu mu tàmbalee di aji des joo xam ne amul fu mu yem doomu aadama nag boo gis ak lu mu gudd gudd aw fan ne ko suñu balaa doon waxee fi fekk àddina fi la ko bàyyi am na ñaar téeméeri at am na junni at am na nangi waaye dem na rek moo ci topp nee na moo suñu borom na ne daal di ne kon nangeen xam ne atte na kenn ku ne ci yéen ab dig ba noppi nag atte beneen dig boo xamante ne nag moom wa ajrul musamman hindoowu boo xamante ni lépp day jeex wa ilallahi turjaxul umur ñu jël mbir yépp yóbbu fi moom mu war ko atte nee na kon loolu tamit doomu aadama da cee war a xamee ni bind ñu ko fi rek ngir muy wéy di dem di dem waaye am na lu tax ñu indi ko fi mooy jaamu yàlla suñu borom jaamu yàlla googu itam dafa am loo xam ne moom lañ ko ci sartal muy waxtu ak diggante yoo xamante ni daf cee war a nekk mu war a fexe nag moom ba fii nga xam ne dëkku fi daf fiy jaar di dem rek mu liggéey fi loo xamante ne bu yeggee fa ñuy fayee moo xam ne moom la taxoon ñu indi ko fi te mu bàyyi ko fi fàttewu ko muy jaamu yàlla suñu borom te bañ ko bokkaaleeg dara. Mm-hmm. jërëjëf euh, sëñ euh, Mouhamadou Lamine Diouf jërëjëf sëñ Mourtada Seye kon ñu daal dikk ci xadiisu bis bi. bismillah sëñ Mourtada waaw hadis bi nga xam ne moom lañu indi tey euh, kenn ci sahaaba yonante bi sallallahu alayhi wa ku ñuy wax Abu Darda euh, moom moo ñu nettali ne yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da leen ma sa wax ne ndax du ngeen ñëw ma wax leen loo xam ne ci seeni jëf mu gën ndax du ngeen ñëw ma wax leen jëf joo xam ne moo gën a tedd ci mboolem jëf yi ngeen mën a jëf fa yàlla sunu borom ndax du ngeen ñëw moo wax leen jëf joo xam ne leen di yéegal ci ay dara ju kawe jëm ci yàlla sunu borom léegi ndax du ngeen ñëw moo wax leen jëf joo xam ne moo gën ci yéen ngeen nekk ci xare di gor noonu yi noonu leen gor ñu ne ko ah yi mu ne leen kon na ngeen fàttaliku yàlla sunu borom na ngeen fàttaliku yàlla suñu borom ñu ne Muaz ibn Jabal sax wax na ne amut lenn lenn loo xam ne moo gën a mën a musal nit ci mbëggul suñu borom lu dul nekk di ko fàttaliku kon addis bi li nga xam ne moom lañuy ci jàngee mooy euh, fàttaliku yàlla suñu borom xam ne moo ñu bind xam ne moo ñu amal xam ne moo ñu wàccee ci ko suuf ngir ñu ko xamit ne danañ dellu ca moom kon fàttaliku yàlla sunu borom tudd yàlla sunu borom ci yi nga xam ne mooy yu màgg yi ndax kat fàttaliku yàlla sunu borom ci di ko tudd loolu dafa am solo lool ci doomu aadama bi ndax dana ko fàttali dana ko dimbale ba soril ko lépp loo xam ne ay neen la dana dimbale ba soril ko ci lépp loo xam ne fab bi am xelam la ba tax na mu war a jaamoo yàlla sunu borom di ko mën a jaamoo dana doon loo xam ne waxtu wu nekk mooy tax mu man di teewlu yàlla sunu borom xelam di nekk ci li tax ñu sàkk ko ndax kat dañuy bàyyi xel ne am na ñoo xam ne yàlla sunu borom de moo leen bindoon sant leen jaamu ko waaye nag fàtte nañ yàlla sunu borom nekk seen bopp nekk seen bopp ba yàlla sunu borom nangu moom leen muy benn waaye dafa mujj fàttalewu leen sax moom yàlla sunu borom. te loolu seen alkande la kon nag di fàttaliku yàlla sunu borom di tudd ay turam yu màgg yi ay turam yu tedd yi loolu dana tax cofeel yàlla sunu borom di ñëw ci ñun yërmandeem di ñëw ci ñun dana tax tamit ñuy fàttaliku ne ay jàmm lañ yu lot yu néew doole yoo xam ne soxla nañu ndimbal te danañ mën a kon nekk foo xam ne ndimbal yàlla dana fa mën a fekk. dëgg la euh, dañuy wax ni borom bi subhanahu wa taala xajul ci asamaan juróom-ñaar. xaju suuf juróom-ñaar euh, waaye xaj na ci xolu doomu aadama bi nga xam ni ñu koy teewlu di ko tudd euh, euh, di ko màggal mm-hmm. waaw suñu Moussa loolu am solo la ndax yonent bi sallallahu alayhi ba muy wax addis ba di soññee ci taqwa dafa jël loxo bi teg ci dënn bi daal di ne daal nag fii lay nekk te loolu mooy ragal yàlla kon misaal la bu am solo ci ne yàlla suñu boroom xolub ab jullit mën na ko dékku euh, addis bii suñu mut laa indi léegi euh, daf ñuy fàttali lu am njariñ muy tudd yàlla suñu boroom tudd gi nag dafa am lu muy indi ndax suñu saari da daan wax ne tudd yàlla jéggalu yàlla sant yàlla ñaan yàlla kon suñu borom saa yoo koy tudd danga koy woo ci ay turam yu yu màgg yu tedd yi loolu itam dina tax nga xam ne yow ab jaam nga muy buur boo xamante ni moo yor kàttan yor coobare sañu jëfandikoo lépp su ko defee nga xam sa néew doole di tuub ak di ak di ak di naqarlu ak di rëccu say rëcc-rëcc su ko defee itam li ci topp mooy di ko jéggalu moom mi mën a jéggale ba noppi itam di ko ñaan sëñ Tuubaa wax ci masaalikul jinaan bunt bi nga xam ne moom la jagle tudd yàlla ne ama dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaanal muridu yaksiru xad xultu zalika bila israari wala ubaali bi sawi inkaari fa kullu man saalini fali jawaab xabla wala tujaajiru ahlu kitaab daal tudd yàlla moo gën ci lépp loo xamante ni ab murid dafay saxoo di ko def nee na wax naa ko nag te ñi nga xamante ni ñoo may jéem a weddi duma leen déglu ndax ku ma laajit lii nga wax foo ko teg nee dinaa la wax ni sama tontu ma nga ci alxuraan soo demee aaya ji nga xam ne moo jiitu walaatu jaadiloo te nee loo mooy wala zikrullahi akbar kon tudd yàlla moo gën a màgg sëñ bi tegaat ci nag ne dina ma jaaxal naka fa kayfa yansa mhm. aw yuxaafil wara zikr naka la nit ñi di sàgganee ak fàtte tudd ki nga xamante ni moo leen bindal te melal leen nee na loolu kon loolu kon lu yéeme la ndax nee na tudd yàlla googu wa annahu bidaayatul wilaaya wa tarkuhu nihaayatul xabaaya mm-hmm. ndax nee na tàmbali wilaaya nee na mooy saxoo di ko def waaye daytalu maanaam alkande ak réer mu ngi tàmbalee ci bàyyi tudd yàlla waxuma laa nga di ko fàtte mm-hmm. mu ne nag kon maa ngi ñaan yàlla nañu yàlla suñu borom boole ci ñi nga xamante ni dañuy sax dàkk seen dund gépp di tudd yàlla suñu boroom te bañ koo boole ak dara kon tudd yàlla day loo xamante ni lu mënul ñàkk la sëñ bi nee itam mooy dundal ab xol. waaw su nit ki bàyyee nee na xolam day dee. su xol bi dee nag ne dootul yëg dara ci li nga xamante ni mooy jaamu yàlla yi ak jëf yu baax yi ñuy def. ak di xemmem mm-hmm. topp yàlla suñu borom nee na nee na loolu mooy def xol boobu boo xam ne bu ñu ko doon waar itam ba suba du ci dégg daal. te doomu aadama bi war na mën a xam ni li muy jëfandikoo lépp ci kaw suuf. ba ci sax nokki bi muy nokki lépp borom bi euh, moo ko ko jagleel euh, te borom bi seconde rek bu téye te loxo mu yëg ko waaw mooy mooy mooy mooy sëñ Saliou doon doon fàttali nee na yàlla suñu borom seconde rek nee ko fàtte nee na ku ko fàtte hmm. yërmandeem rek a tax ak lewetam hmm. hmm. waaye nee ku mu fàttali boppam sa xel dootul dem ci lu dul moom kon nag yàlla nañu yàlla xiir ci boppam eh, ci ñu xam ko màggal ko ak itam di ko teewlu saa su nekk ci suñu biir xol euh, jërëjëf kon ñu daan di ñëw ci li nga xamante ni moom moom moo di xikma bi euh, bismillah sëñ Mourtala waaw wàllu hikmatu bi tey ñu ko génnee ci sirkul jawaahir mooy téere boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko bind ku wax Abu Urayra nee na dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi di ko siyaare si daat koy wax ne ko dama bëggoon nga dénk ma loo xam ne dana gàtt dana tënku ngir ma mën a sax waxtu wu nekk di ko jëfe nee na bi mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko naa la dénk juróom-benn yoo xam ne soo ko settantalee da gis ne am na juróom benn téeméeru njariñ yoo xam ne mi ngi ci juróom-benn yooyu mooy yan bu njëkk bi nee na ko su dee nit ñi ñu ngi yittewoo ay jëfi naafila nee na yow na nga yittewoo jëf joo xam ne mooy jëfi farata kon dafa mel ne ñu ngi jàngal euh, euh, Abu Hurayra ne ko waxtu wu nekk li nga xam ne mooy li la war te war a jiitu na jiital ba mat sëkk la ci war a topp topp ca waaye bàyyi la la war defoo ko di dem def leneen loo xam ne euh, des na déedéet bul def loolu <coughs> kon loolu moom mooy bu njëkk bi ñaareel ba mu ne ko nit ñi bu leen déglu la ñuy wax ak la jëf bu mu doon sa yitte waaye sa yitte na doon yàlla sunu borom yàlla sunu borom moom mi nga xam ne moo ñu bind wàcce ñu si ko suuf sant ñu jàmm ko kon waxtu wu nekk kooku lañu war a bàyyi xel ak jëfam mhm. waaye kat su dee yaa nga bàyyi xel lor yi bindee fii di wax jëme ci yow wala jëf yi ñuy jëf yu ñaaw jëme ci yow loolu mën naa dem ba fabbi la ba tax la nga war a toppee sa borom jaamoo sa borom loolu des mhm. kon bul nangu bindee fi fabbi la mhm. ba tax doo mën a jaamu yàlla sa borom kon yow na sa xel nekk si sa borom waxtu wu nekk boobu moo doon ñaareel ba ñetteel bi mu ne waxtu woo gisee nit ñi seen yitte yëpp dem ci di sakku xam-xam yow na nga fexe góorgóorlu ci jëfe xam-xam bi kon ñu xam ne sakku xam-xam ak jëfe xam-xam day ñaar yoo xam ne yi war a ànd di dem waroo sakku xam-xam am xam-xam bi ngir di ko génnee ñu jàpp kii moo bari xam-xam wala kii moo mel nangam kii moo mel nangam déedéet ndax bari xam-xam te jëfewoo ko ñu ne dafa mel ne mbaam moo xam ne dañ koo sëf ba mu dis gën kon kii mi ngi koy digal muy jëfe xam-xam ndax xam-xam bu bari te jëfewuñ ko amul njariñ kon waxtu wu nit ñi di xënte xam-xam ngir bëgg ñu di gis dégg moom yitteem doon ci jëfe xam bi mu wéy ba tey moom ne ko fu nit ñi di xëntewoo di jëf loo xam ne mooy li ñuy gis mooy liy feeñ yow nanga defar sa bopp nanga defar sa biir te xam ne yàlla sunu borom xam ne liy feeñ nekk ci bitti nit ñi di ko gis waaye xam ne tamit li nekk ci biir kon nanga nga defar sa biir bu baax a baax sellal ko taxaw ko bu baax mu wéy ba tey ne ko soo yow gisee nit ñi seen yitte jëpp jëm ci àddina gi ñu nekk di bëgg àddina di topp àddina mu jaral leen lu nekk yow nanga dawal sa xel ci àllaaxira ca àddina jiñ jëm ndax àddina gii dafa gàtt am fu mu yem te fii ngay liggéeyee loo xam ne mooy tax ëllëg gañ jëm te yemut fenn nga mën ko faa fekk mooy li sëñ Saliou Mbacke waxoon ne yàlla sunu borom dañoo boole ñaari biir biiru àddina gi ak biiru bàmmeel suñ biiru jëm yi moom yàlla mi ko sàkk sàkk lu si jëm waaye suñ biiru bàmmeel lu ñu fa defut duñ ko fa fekk kon nag mi ngi ko digal ne ko àddina gii bu mu doon sa yitte sa yitte ne doon fañ jëm ngay liggéey ngir soo fa àggee mën faa fekk lu bari loo fa yóbbu woon bi nga xam ne noonu mujjee nag mooy su dee e, nit ñi ñi nga yittewoo di xool seen sëkki moroom wala seen ay moroom yow sa yitte na doon ci xool say sikk bopp ak say ay bopp loolu soo ko defee danga nga mën a waxtu wu nekk di corriger sa bopp di góorgóorlu ba sikk yooyu di deñ walis nag nga bàyyi sa sikk bopp nekk si sikki jàmbur waxtu bu nekk nga mën koo gis lool mën ko ràññee lool mën koo nettali lool te fekk na yow yaa ngi fees dellëkk sikk te gisoo ko nee ne kon yow na nga delloo sa bopp sa jëmmi bopp kon dafa mel ne dénkaane bii nga xam ne ñu ngi ko jëlee sil ko jawaayir te yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxoon ko euh, Abu valable pour ñun ñëpp ndax day tax waxtu wu nekk nga delloo si sa xel waxtu wu nekk ngay xam li tax ñu sàkk la waxtu wu nekk nga xam li tax nga nekk ci kaw suuf ba tax say waxtu doo ko neenal hmm. waxtu wu nekk da fexe ba mu doon loo xam ne njëriñ lay doon euh, sëñ Mourtalla Seye dañuy wax ñetti xeetu nit moo am hmm. euh, nit nitu ndox nitu ngelaw ak nitu safara hmm. nitu safara moom mooy yàlla yàlla mooy ñi nga xam dañuy fitna rek ak ay ci kaw suuf nitu ngelaw mooy ñi nga xam ni lu xew fàbbi leen nitu ndox nag mooy nitu jàmm nit bu dal nit boo xamante ni mooy woote woo meloog yi nga xamante ni euh, moom moom moom moom nga ñu tënkal léegi sëñ Mourtala Seye euh, sëñ Mouhamadou Lamine waaw yaakaar naa sëñ Mourtala indi na ci ay leer lu am solo yoo xam ne lii boo seetee rek dafa mel nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu ñu ñuy jàngal fii te Abu Hurayra indil ñu ko mooy ak way rek lañu bëgg a jàngal ak way maanaam mbir mu am mu ne nga seet li ci am njariñ te di la jariñ nga def ko ndax nee na la su nit ñi ittewoo biti yi yow ittewoo li ci biir ndax yàlla du xool li ci biti li ci biir lay xool nee loolu lu am solo la neena itam su fekkee nit ñi dañuy xëntewoo xam-xam bu bari yow xëntewul neel siiw li nga xam mu néew ko bari nga jëfe ko ndax sëñ bi dafa ne xam-xam ak jëfe dafa mel ni garab ak meññeent garab nag bu ñu koy jëmbat meññeent maa tax kon xam-xam garab goo xamante ne nag dafa naat loolu te amul benn meññeent kon day mel ni la taxoon lañ ko doon doyee du loolu kon nee na mooy meññitu xam-xam te daf leen di taqale ñoom ñaar waaye nag nee na koo gis muy jëf lu jëf ji bari bari te àndul xam-xam nee na jëfam day mel ni për pënd bu ñu wesaare pënd nag moom boo ko wesaare woon du yomb nga mën koo dikk mbaa nga amaat ci dara euh, li mu wax nag ci wàllu euh, bu nit ñi dee ittewoo ayib bi nit ñi yow ittewoo say dafa am euh, ku koy leeral ci ne maanaam ñaari kasfu moo am kasful mufiid ak kasful mufiid maa nit koo xamante ni dañ koy won bon boni nit ñëpp mu xam ko jàkkaarloog moom ni ay rëdd baaraamam waaye xamul dara ci boppam ne na loolu bariwul njariñ waaye li am solo nag nee mooy yow nga gis say ayib bopp gën a xam sa bopp nga xam ne bu la nit ñi taggoon ak fu ñu la mën a yóbbu it boo naxul sa bopp dinga xam ne yow. yaa gën a xam sa bopp. donte sax nit ñi kenn mënu mucc ci seen làmmiñ. kenn mënu mucc ci seen làmmiñ. dañuy wax sax bu la sa xaj bawul. Mhm. xaju keneen baw la. kon loolu nee nag yow nga ittiwoo yow say ayib bopp. di ko seet di ko toppatoo di ko defar nga xam ne dina la doy sëkk soxla. Mhm. walis tudd ayib keneen. ndax suñ bi nee dafa am ko wax ne su fekkee da bëgg a dund. te sa diini ñoŋ sell. Mhm. sab der ñoŋ kenn du ci teg dara. wërsëg woo am mu lew la nga muurloo ko lekk ko mu rees ak jàmm nee na loolu soo ko bëggee li la koy may mooy na nga góorgóorlu ba sa làmmiñ bu ci tudd awra nit nee na bu fekkoon sax demoon nga ba say bët gis awra nit nee na nga leen yedd yéen samay bët bu leen xool awra jàmbur sëñ nee na waxuma la sax loo xam ne ayibu nit la waaye nit ki bu juumoon sax fakastalu def loo xamante xam nga ni lii du jikkoom njuumte la rek wala ndogal la nee na yow loolu bu ci nekk di ko gëstuwaat di ko lijjanti di ko xam wala takkun multamisan lil xasaraat wala tuwaahis abadan an xawraat wax malaak nag nga ñu ne nit ki kat euh, nangam la mel wala dafa def nangam nga seet ñu la koy toppal di ko gëstu di ko rajo ngir bëgg ko indi ci biti di ko weer sëñ bi xew nag jamono ji waaw sëñ sëñ bi nag dafa wax nee na ci nax ju nee na képp koo xam ne sa itte mooy di suturaal bindeef yi nee na yàlla suñu borom dalay suturaal rek waaye nag nee na bu fekkee itamit sa itte mooy xaaw yi sutura nit ñi nee na nay tey nay suba day gaaw wala mu yéex waaye bis dana ñëwit suñu borom fay la sa bor ñi sa ayib yëpp ba mu ne fang ba loo doon nëbb nit ñi gis ko ndax dañ laa fayee la nga doon def mooy bëggoon képp ku gis sax sëñ Moutala Seye loo xam ne euh, euh, lu ñaaw la da ko war a da nga ko suturaal waaw loolu loolu mooy li sëñ Saliou li sëñ Saliou Mbacke doon jàngale mm-hmm. nee doomu aadama bi su xamee say ayib ngir weer la la waaye nag yàlla sunu borom moom su la woon say ayib ngir jéggal la lay doon. Eh, kon ñu daal dikk ci beneen ponk bi muy arminaat alminat ñu fàttaliku xew-xew euh, ci taarix euh, fukki fan ak benn fukki fan ak ñett ci weeru avril. Mm-hmm. Euh, ñu ngi ci atum 1975. Mm-hmm. bi yoon dañuy dem ba fi nga xamante ni mooy Proche-Orient muy nag fitna ju fa amoon ju metti mm-hmm. doon fukki at ak juróom xeex boo xam ne ci biir Liban la woon li ko indi nag ñu bari dañoo wax ne lu sori la mu ngi sababoo ci xëccoo yi amoon diggante Israël ak Palestine ndax 1969 jàpp 70 palestiniens yi nga xamante ne dañoo làqu ji woon Jordanie dañ leen faa génnee bi ñu fa génnee nag ñu ñëw sanc si fi nga xamante ni mooy bët gànnaaru Liban loolu tàmbali indi ay jafe-jafe ci seen biir waaye li gën a sax taal daay gi mooy bi ñu demee bu fukki fan ak ñett ci weeru avril 1975 mu am ay jàppante yoo xamante ni dafa amoon diggante palestiniens yi ak ñi nga xamante ni ay phalangiste lañu muy ñi nekk parti extrême droite bu bu Liban loolu moo tàmbali nag déclaré guerre bi ndax dafa am benn garde corps Chamael boo xam ne def cee faatu ginnaaw gi biñ ne ba 1976 ñu ne léegi nañu dakkandil xeex bi waaye bi ñu koy dakkal boobu fekk na fanweeri junni nit ñàkk ci seen bakkan trente mille personnes am ci lu mat juróom benn téeméeri junni daw làq yoo xam ne dañoo génn amuñu fenn foo xam ne fa lañ dem ñu demaat ba 1977 mbootaay xeet yi dugal ci loxoom ngir bëgg xeex ba jeex waaye li ko gën a jafe dafa amaat geneen kilifa gu ñuy wax Kamal Jumlat nokkoon parti socialiste bi moo ko yor moo ko yoroon moom itam dañu ko faat ci benn attentat Israël itam tab bi fi nga xamante ne mooy sud Liban indi fa ay fitna ba uni indi benn résolution bu ñuy wax 425 ngir bëgg ñu génn ca réew ma 1979 yeneen jafe-jafe amaat fa mu mujj nag Beyrouth sax dañu ko mujjee xaaj ay ay ay xaaj ñi ne maa féetewoo lii ñi ne maa ne maa féetewoo lii ndax foofu ay chiite dañ faa nekk ay jullit nekk fa ay chrétien nekk fa ci biir chrétien yi mu amaat yeneen kuréel ci seen biir parti extrême droite di soog a ñëw mu doon lu lu lu naqari lijjanti loo xamante ni euh, mooy indi jaxasoo yu métti yooyu biñ demee nag ba 1982 mhm. président euh, bassir Gemayel ñu faat ko moom itam ci Beyrouth rakkam ji ñuy wax Amine Jamay remplacé ko loolu nag gën a yokk xeex bi 1983 euh, ambassadeur États-Unis ba am attentat bu metti bu fa am boo xam ne ay juróom-benn fukki nit ñàkk nañ ci seen bakkan loolu nag tax xeex bi gën a metti diggante Chine tàbbiwaat ci ONU taxul mu mën ci lu bari Israël dugal ci loxo mu doon lu jaxasoo lu kenn mënul lijjanti waaye biñ demee ba 1989 la ñu jéem a ju juboo nag foofu ci Taïf. Mm. ci Arabie Saoudite indi benn accord boo xamante ni moo tax jàmm yu dellu si waaye teewul nag Syrie am na fa daanaka lu mat ñeent fukki junni soldaar yoo xamante ni ña nga fa woon loolu bokkul ak li xewoon ci massacre Sabra Isetla 1982. ku ñu Ariel Sharon defoon ko benn camp boo xam ne ay palestiniens dañ fa làq woon mu doon ay ñaawteef yu yu kéemaane ay nit ñu ñu faat ay faat yu méttee méttee métti ba léegi nag daanaka li ci mujjoon mooy. diggante 89 ak 91 ki ñu doon wax Michel Aoun. Mhm. doonoon chrétien boo xam ne moom dafa woon du bàyyi waaye mujj na daanaka dafa daw làqu ji France loolu moo fa indi li nga xamante ne mooy jàmm ji waaye fukki at ak juróom la yoo xam ne. Ah, bi ñu ko seetee daanaka lu ëpp ñaar fukki junni nit ak ak ak fanweer ak lu topp ñàkk nañu seen bakkan. fil na baaxul leen ci yàlla leen ko yàlla musal kon ñu daal dikk rek ci jukki ay tënk ci xabaar. doore ko ci directeur général agence presse bu Sénégal di Thierno euh, Birahim Fall euh, xaatim na démb ak euh, directeur agence presse ba nekk ca Soudan Khartoum loo xamante ni daal déggoo la ci nu ñu mën a weccante ay xabaar xam nga agence de presse sénégalaise moom xam nañ ni mooy këru taskatu xabaar yi nga xam ni nguur gi teg na ko fi. gi matali réew mi yëpp. loolu it moo am foofee ca Soudan nañu def daal ñoom ñaar ba di mën a weccoo ay ay xabaar euh, directeur bu rajo Kayar FM xam naa ne rajo communautaire lay doon mhm. Babacar mbay ñoom nag ni ki ëllëg incha allah dina am daal ay matériel yu am doole yoo xam ne dinañu leen ko jébal te loolee muy bàyyi bàyyeekoo ca benn société mu nekk ca États-Unis euh, cérémonie bi nag ci koy teewee moo di maire bu commune euh, buy Kayar ak autorité yi nga xam ne ñoo fa nekk Euh, kër Afrique yi daal ñoom li ñu ko mën a waxee société africaine euh, nee nañu daal nañu nanguwul jigéen yi euh, walees nañu mën a jël ay place yu ñu mën di jiite ni ko góor nit di defee ki ko xam ne daal mooy benn directrice général benn société ñu di Imani ñu duppee ko Aminata Mbengue Euh, kon defe naa jigéen moom mosul dellu euh, mosul des gannaaw nag comme ñoom ñi ngi sàkku daal fu góor jiite jigéen mën na fa jiite loolu moom xam naa nag moom loolu moom jiite moom daal moom xam naa ne moom kenn jàkk moom góor a koy jiite xam naa ne moom <laughs> jigéen du jiite moom mos a jiite jàkk moom. <laughs> waaw yàlla baax na fii fii entreprise la <laughs> entreprise yi daal baax na kon. Euh, ñu daal dikk rek ci météo Diourbel euh, ñeent fukk ak juróom-ñaari degré la kon dina tàng lool tey jii ci bëccëg bi ñaar fukk ak ñetti degré ci ngoon Matam ñeent fukk ak juróom degré euh, Dakar ñaar fukk ak juróom benn ak ñaar fukk ak benn euh, Dakar nag ba léegi dafa sedd ba léegi ñoom nag xam naa ni loolu moom yéeme la soo ko xoolee yeneen diwaan yi Tambacounda Podor Kaolack Ziguinchor fii yëpp dafa tàng Eh, waaye guddi gi lay feex ci ni ñu ko gisee ci climat bi eh, eh, jant bi nag fenk na ci juróom-benn waxtu bu tegee juróom fukki simili ak ñett ak jant bi dana so incha allah juróom-ñaari waxtu bu tegee. fukk ak juróom-ñaar simili euh, kon nag yooyu moo fi dikkoon ci rek xanaa ñu yokk ci waaw waxtu julli yi euh, fajar gi mu ngi toll ci juróom benn waxtu bu tegee euh, juróom fukki simili ak ñaar tisbaar benn waxtu bu tegee juróomi simili takkusaan ñeenti waxtu bu tegee ñaar fukki simili timis juróom-ñaari waxtu bu toftalee fukk ak juróom-ñaari simili julli gee juróom-ñetti waxtu bu tege fukk ak juróom-ñaar simili kii la ñu indil kon ci ay tënk yeeg ak waxtu kii julli yi ak météo kon Njoko Njal Adama Mbodj jërëjëf kon ñu daal di dikk ci li nga xamante ni moom moo di eh, li ma taxam ci bis bi mm-hmm. eh, moom moo di tey ji eh, ñaar fukki fan ak ñett ci jumaada saani muy bisu altine mm-hmm. muy bisu altine bu ñu sukkandikoo ci xoratul xayni bu sëriñ Sohaybu Mbakke altine bokk na ci yiñ ci gën taamu mm-hmm. mooy watu ak daloo kon yooyu bokk na ci ci gën a taamu ci bisub altine baax na kon jërëjëf kon ñu daal dikk nag ci ponk bu mujj bi moo di rek euh, xasida gi incha allah Mourtala kon bismillah ci xasida gi waaw jërëjëf sëñ Moussa ci xasida gi euh, dañoo jëloon téere bi nga xasida gi nga xam ne sëñ Tuubaa di ko bind muy miimiye miimiye nag euh, dañ ko jëloon di ko def ay bunt di ko topp nànk-nànk euh, ngir waxtu wu nekk di ci mën a gën a amee am njàng te dafa am loo xam ne dañ ko see seetlu te waxoon ko mooy su dee ci xasida gi sëñ Tuubaa tagg yonent bi salallaahu alayhi wa sallam moom lay def waaye doo gis ci biir tagg yi dana ci boole yu baree bari gis ne day tagg yoo xam ne day ànd ak salatu ala nabi day tagg yoo xam ne ci benn bayit bi danga ci mën a fekk salatu ala bi danga fi mën a fekk ay tagg danga fi mën a fekk tamit moom sëñ Tuubaa muy leeral di wone ay may yoo xam yàlla sunu borom defal na ko ci ba tax moom mu koy sant waaye ci biir tagg gi tamit da ngay wone Sëñ Tuubaa day wone moom engagé bi nga xam ne moom la engagé ci liggéeyal yàlla suñu borom jaayante gi nga xam ne moom la jaayante ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lépp day feeñ ci biir tagg gi nga xam ne mi ngi koy def ci biir tagg gi nga xam ne mi ngi koy tagg Yonent tamit day mel ne day doon ab occasion ab force boo xam ne moom da ci jaar di jàngalaale ki nga xam ne moom lay tagg moom mooy kan gis nañ barki démb bunt bi nga xam ne moom lañu mujjee jël di wane ni nga xamante ne moom la yàlla sunu boroom musalee Seydina Moussa ci daraja yonent bi ni musalee yonent yàlla Ibrahima ci daraja yonent bi ak yonent yooyu yëpp nga xam ne kenn ku nekk tolloon nga ab diggante ak xat-xat te yàlla sunu mën a dimbale la ci daraja yonent bi kon Sëñ Tuubaa ci taggam suy indi yooyu day wane ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak darajaam ak màggaayam ak kaweem moom lay wone foofu wone ne képp koo xam ne da koy tudd rek ak lu mu baax baax baax baax baax kooku dafa nekk ci ron yonent bi salaahu salaam yonent bi da ko fete kaw kon tey jii tamit suñ demee ci euh, bayit bi nga xam ne mooy euh, bayitu 99 euh, wala baytu téeméer sax tàmbale fa ba téeméer juróom ci biir loolu tamit yonent bi salaahu salaam ci biir taggam mi ngi woon darajey yonent bi salaahu salaam ak màggaayam waaye fii nag mi ngi ko wane ci bi nga xamante ne moom lay rañaane hmm. ndax mi ngi ñuy xamal ne moom yonent bi sallallahu alayhi yàlla sunu borom yónni na Seydina Jibril mu ñëw war alburaax jël yonent bi sallallahu alayhi wasallam yóbbu ko si asamaan loolu nag jamono bi nga xam ne moom lay def loolu mooy li am solo mooy siire bi nga xam ne yonent bi mi ngi ñu koy jàngal hmm. waxtu woowu de ca biir Màkka ñu ngi bundu xataan yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi bundu ñi nga xamante ne moom la àndal may ñu leen fenn foo xam ne dañ fi mën a jaamoo yàlla seen borom coono bu nekk ñu ngi leen koy teg mel na ci gàttal daal dañ koy weddi waaye ci biir loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom yàlla sunu borom jël na ko yóbbu ko ba baytul maqdis mu fekk fa yonent yi nga xam ne jiituwu nañ yëpp mu ñëw doon seen imaam fekk la ñoom ñëpp ñu dajee di ko teeru di ko màggal di ko sargal di ko jox daraja yi nga xam ne moom la lool mu jiite leen julli xool leen ñeere ñu ngi koy weddi waaye ñeer ñu ngi koy teral mm-hmm. ñu ngi koy màggal ñu ngi koy sargal mu jógee fa ñu jëlee ko yóbbu ko ci asamaan bi mm-hmm. egg ba ci ki nga xam ne mooy euh, Seydina Jibril ak la waroon lépp egg ba ne ñu ne fii lañ yem mënuñu ko weesooti bàyyi ko moom mu jàll ba yàlla sunu borom won ko fa loo xam ne moom rek moo ko xam won ko loo xam ne tamit lu war a indil doomu aadama yi la nga di mën ko fa indi kon eh, sëñ Touba mi ñuy woon darajey kooku suñu nettalee tukki bi nettali na nga xam ne moom la fa jëlee ak na nga xam ne moom la loolu amee jublu gi mooy xamal ñu ne kii may nit tagg de kii may wax ak yéen de borom daraja yu kawe la moom moom la yàlla def lii te loolu yàlla defu ko ku yàlla sàkk moom dong la ko def kon day mel ne ca tagg gi nag mm-hmm. eh, yàlla sunu borom eh, sëñ Touba mi ngi ñu jàngal kan mooy yonent bi dañuy jàngal ay pàcc ci dundam loolu mooy siira te ko muy loo xam lu am solo la ci li nga xam ne euh, moom mooy tagg yi nga xam ne mi ngi ko doon tagg. waaw ah, jëf euh, sëñ Mouhamadou Lamine. Mm-hmm, euh, bunt bi day wanewaat rek taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa ndax boo xoolee rek bayit bi sëñ bi tàmbalee xat baata yasri wa jibrirun salaamahu mm-hmm. fawxal buraaxi li man xañ la waram baxama nee na dafa fanaani xotti guddi gi ànd ak Seydina Jibril war ci kaw waruwaay wu ñuy wax alburaax nga xam ne kon fii sëñ bi détail yëpp la la indil waaye nag nee na ñu dem ci barab yoo xam ne la ne doomu aadama yépp ump na leen kon mooy ci gàttal kenn mosu faa dem kenn mosu faa yegg mhm. waaye Seydina Jibril moomu li nga xamante ni noonu la daan ànd ak moom yépp am na foo xam ne ba mu fa yeggee mënu koo weesu ndax alxuraan day wax ne ci sidratul muntaha euh, yenn bonoo xam ne firee ko ni déem la goo xam ne dafa ne ci kaw asamaan si nga xam ne nit ñiy dem foofu la ñuy yem mënuñu ko weesu moo ne ba mu weesoo foofu ci la yonent bi saa nag wéy jëm ci ab dox jëm ci dajeek boroomam boo xam ne moo da sëñ bi dala wax ne fa haaza ma haaza min sirrin yu xassu bihi walay sa yuhza bi xalqun xawaaxi zama nee nag mu jële fa lam fa jële làq fa lam fa làq diggam ak boroomam loo xamante ni mbindeef wala doomu aadama du ko xam ngir ay secret yu xóot muy dikkaat ci alxuraan boo demee ci muqaddimaat sëñ bi dara naan maqaamaatu xayril xalq an xayri rabbi moo xay yawarun fal taqra an suuratu najmi nee na yonent saa saa maqaamam daal ku dul yàlla suñu boroom mi ko bind fàddu na la waaye nag boo ci bëggee am benn ferñeent wala benn soo demee ci alxuraan nga jàng saar wu ñuy wax sóotu naj mi saar suñu boroom da ci misaal bi yonent bi saa sa bu ñëwee nee na maanaam su fekkoon lu ñuy wax la ci nit mu xam ko nee na euh, xala mooy li nga xam ne moo la ñuy teg ngir def ci fett xëcc ko ngir mu mën a jàmm bu demee ba sës ni nga xamante ni ñaari def ni dañuy dem ba jege nee na diggam ak boroomam mel na noonu wala sax mu gën koo jege moo tax sëñ bi suñu borom teg ci na mu waxee ci alxuraan noonu la sëñ bi fii fa awha ila abdihi ma awha kon la mu ko wax moo tax la secret boo xamante ni benn doomu aadama xamu ko diggam ak boroomam rek la muy wane ne foofu yegg na ci foo xamante ni benn mbindeef bu suñu borom mës a bind ci kaw suuf boo xam ne àgg nga foofu amul ndax moom fa nit ñi li yàlla suñu borom bind yëpp fa ñuy yem muy séddatul muntaha moom foofu la tàmbalee wuyu borom kon lam ci la ci am kum ko waxul doo ko xam. kon ne secret la boo xam ne kon woneen ni kon eh, diggam ak boromam lu am solo mu indiwaat nag beneen kéemaan goo xam ne moo gën a tax loolu yéeme mooy. wa aabu fi layli xablal fajri munsarifan li ahlihi zahibatin minhu muxtasima waaye nee na diggante màkk ak ma maqdis li muy sori sori mm-hmm. jóge na fa jii dafa yonent yi waxtaan ak ñoom sargalante ak ñoom dem ci asamaan yi asamaan su mu romb Seydina Jibril ne ko kii mooy diw kii mooy diw mu jóge fa wees mu Muntaha dem ba suñu borom wax ak moom nee dellusiwaat te nee na guddi gi jeexul nga xam ne kon loolu geneen kéemtaan la goo xamante ni lu yéeme yéeme yéeme yéeme nee na moo tax nag mu am ci ay xarbaax yoo xamante ni suñu borom defal na ko ci ay may ak yu mu ëndaale yu bare bare bare yoo xamante ni doy na misaal ci darajaam ak ni nga xamante ni la toll ndax ci la ñu xamal àjjana nu mu mel xamal ñu sawara nu mu mel xamal ñu dégg yi ci biir xamal ñu dex yi xamal ñu nit ñi nañuy mel lañuy la ñuy sol ñenn ñu nekk la suñu borom di fayee ci lu baax ak jëf ju ne ñu ko def ak ñëpp ba mu yërndoo sawara ñam fa fekk kenn ku ci ne xeetu mbugal mañ lay mbugal bi mu laajee Seydina Jibril ñi ñooy ñan mu ne ko mooy ñi daan def nangam ak nangam ak nangam ak nangam ba mu jeex nga xam ne kon loolu yëpp bi mu ñëwee indil nañu ci ay xam-xam yoo xamante ni kenn mënu koo xam ku dul ku dem ci suñu borom rek mu mu jagleloo kon nag euh, yonent bi daal sallallahu alayhi ñuy wax sax asamaan juróom-ñaar ak suuf juróom-ñaar euh, bu ñu booloo wane martaba bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ko sax mën kon euh, yonent bi daal sallallahu alayhi yàlla teg na ko loxo teg loxo boobu yëpp nag yërmande la et yërmande googu nag ñu yaakaar ci moom yàlla nañ ko yàlla defal fii ak fële ñu ñëpp ci barkeem kon jërëjëf euh, sëriñ euh, Mourtalla Seye jërëjëf sëriñ Mouhamadou Lamine jërëjëf euh, yéen techniciens yi jàpp ci liggéey bi ak itam téléspectateurs yi di leen dig daje ëllëg jàmm incha allah ci beneen numéro Asaba Asaba fii rek la ci Al Mouridiyyah TV amul feneen